<laughs> eh gars yi démb est-ce que xam ngeen ne ci bi doxoon diggante Manchester City ak Real de Madrid jëmm joojee ngeen gis ci ginnaaw di Kevin De ak Guardiola doon xuloo xuloo bu en plein match nag te boobu fekk ne moo dominé lu bëri euh, nii mooy loolu mais na jàmm ak salaam naa ne expliqué li waral cool balaa boobee gars yi dañ leen jox euh, joueurs nga xam ne fële ca Premier League nominé nañ leen pour ñu war a jël meilleur joueur ak ñi nga xam ne meilleur joueur ak meilleur coach yi ñoom laa leen indil nii bu demee ci meilleur jeune yi dañ koy njëkkee ci gone gi ñu naan Botman nekk fële ca Newcastle euh, Caicedo moom nag révélation la nekk fële ca Brighton de même que Erling Haaland meilleur buteur actuel euh, bu Premier League meilleur jeune joueur nañ ko foofee Isaac tamit révélation la meilleur jeune joueur Newcastle la nekk de même que Alistair moom moo nekk fële ca euh, Brighton moom it nominé nañ ko l'Argentin de même que Martinelli moom tamit nominé nañ ko ci euh, meilleur jeune yi gis nañ ne tamit Odegaard moom Arsenal la nekk nominé nañ ko ci meilleur jeune yi de même que Xhaka moom it nekk Arsenal nominé Euh, moom moo nekk Manchester City Erling Haaland en plus nominé nañ ko ci meilleur jeune joueur pare yéen nominé waat ko ci meilleur joueur yi euh, Eric Kane Tottenham nominé nañ ko ci meilleur joueur yi nekk Arsenal nominé nañ ko ci meilleur jeune joueur nominé ko ci la nekk ci meilleur joueur yi moom lañ nominé tamit bokk na ci dem Arsenal bu Arsenal ko euh, désert désert bi moom tamit nominé nañ ko gis nañ ne tamit euh, Unai Emery moom tamit nominé nañ ko te li gën a am solo ci mbirub Unai Emery mi saison bi képp la ñëw foofee ca prime di taxul nominé nañ ko ci meilleur euh, coach yi mu ngi noonee Guardiola moom it c'est c'est c'est normal et nominé nañ ko xaaw moom it nominé nañ ko gis nañ ne tamit euh, Silva bu Fulham moom it nominé nañ ko coach boobee mu doon na euh, sélection yoo xam ne nii ñu ngi xaar kan moo war a jël meilleur joueur ak meilleur jeune joueur ak meilleur coach ci commentaire yi kan ngeen di jox meilleur joueur ak kan ngeen di jox meilleur jeune ci ñi ma jot a ak kan ngeen di jox meilleur coach ngeen bindal ma ko ci euh, commentaire bu loolu weesoo nga ñuy wax ci. cool yi nga xam ne amoon na diggante Guardiola ak ki ñu naan euh, Kevin De Bruyne te ñu bari bàyyi ñu ci woon xel actuellement sax muy commencé viral ci en plein match Pep Guardiola ak Kevin De Bruyne xuloo mais finalement bu ñu la ñoo juboo muy lan Kevin De Bruyne dafa téebal bi am bu franc boo xam ne nii waroon na ko mën a muy daw ak bal daw bi Pep Guardiola foofu xam na jàpp na ne am na kuy ñëw te dafa war a def passe mun na ko defal passe yuux ko defal passe defal passe ba Kevin De Bruyne perturbé euh, bal bi rëcc ko joueur bi këf bal bi ci moom Kevin De Bruyne dal ci kaw Guardiola ne ko tais-toi waaw ci la cool yi commencé nag ñoom ñaar ku ne di sànnante ay kàddu mooy loolu mais au finish ñoom ñaar mujj nañu juboo euh, ba ñuy génne Kevin De accolade bu yàgg ñoom seen bu ñu duggee ci vestiaire tamit géré nañ ko mooy loolu mais c'est normal ça fait partie ci football mais Guardiola kenn moom da